léegi la nga xam ne jot nañ ko gis euh, am na gëstu bu leen ci war buñ ko defee ba noppi kayit ya cay jógee ñu séddoo ko ak ñun ñu nekk fii ci biir Thiès buñ ko séddoowee ak ñun ñu xool yan xeetu saafara la ñuy defandoo mais luñ ciy def danañ fexe ba waxtaane ko mais waxtaane ko aussi ak waa askanu cees parce que d'abord pour ñoom la. mais toogu leen seetaan ak xaar état bi am na loo xam ne jot ngeen koo xalaat si sa gis-gis monsieur le maire lan mooy saafara euh, jafe-jafe mbënd mi ci Thiès. waaw xam nga ku xam cees bu baax di nga xam ne. cees dafa mel ne leket maanaam biir li ñuy tuddee ville bi nekk ci biir mu am ay euh, tund yu ko tiim moo xam boo jógee di dem yoonu Sinja booru Kisaan moo xam bu fekkee da nga jëm booru cees noonu daaral pël ak yooyu moo xam boo jëmee booru morola te fenn fu ci nekk euh, dafa am lu daan téye ndox mi bu njëkk daan ko yóbbu ci tool yi ak daan ko yóbbu ci ay déeg ñëpp xam nañ ku miin Cees xam ne am na déeg yu amoon bi ñu gënee nekk gone amatuñu ndax nit ñi dañuy yàq gàncax gi ndax du nit ñi ni ñuy dundee parfois mooy indi yooyu am nañu benn projet boo xam ne ay at a ñu ko doon liggéey di ko liggéey ak allemand wu Solingen yi waaye seen gouvernement moo koy financé ngir lan ngir ñu kar ndox mi yenn yi ñu delloowaat leen ca yoon ba fa ñu daan jëm bu ko defee ndox miy ñëw biir Thiès gën a néew xam nga soo wàññee ndox miy ñëw biir Thiès di nga gën a yombal liggéeyu collectivité locale yi nekk biir cees tey fexe ba fattar ñi yoon yi nga xam ne ci la ndox mi daan jaar parce que bu ñu leen fattar ñiwul ndox mi bu ñëwee du jàll te ndox mi ba mu daan ñëw fa muy jógee day àndaale ak ay suuf àndaale ak ay mbalit yenn saa yi aussi nit ñi dem fekk foo xam ndox dafa war a jaar ñu tuur fa mbalit sotti fa mbalit te waruñu ko fa sotti